rich beats on the track. ah tey sama maa ngi lii nga def ah ko lii ko saa yi ko joxee samay baaraam doon kon léegi ma kuuñ def sa kanam lewet na de yaa gëree de xanaa da ngaa jot sukar koor ah jox nañ la ana sama mu ngi ci biir day nelaw mais Baye Fall mu ngi ci biir Baye Fall mu ngi maa ngi dem marché bi Baye Fall filles, ça va bien Ça va bien. ana waa kër gi. la personne ici je suis seule. li moom dafa génn ah ñoom ñëpp génne ko. ok c'est une location. oui ça va yaa ngi am jàmm. Ah? ça va bien. yaa ngi cool. ça va. toog nii jàpp sa tànk ak ci kaw. Mhm. oui. ok location ah bon. maa ngi doon gis si kër gi bon. neex ma ngay joxe xam nga boobu ba léegi bon ma bëggoon fi pour gis la mais nekkoon lu jafe quoi ok ma la bëgg a wax. pardon. bon bi ne ay love you xaw ma anglais la def quoi. tu m'aimes. ouais. hey. yaa ngi rey de. ok. Tu veux être avec moi Ah ouais, bien sûr. La fois passée, c'est le petit là, je ne sais pas, Lingom, je ne sais pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est toi. Man ngay tekk lekk limon. Man duma limon. Écoute-moi. Ouais. Vous deux là, je ne suis pas votre. Vous ne suis pas votre égal. Écoutez-moi, écoute-moi très bien. Je ne veux pas de problème. Hé. Hey. Hmm. que ça soit la dernière fois que tu viens ici. Ouais. Hey <laughs> Hey Non, non excuse, excuse-moi. Hey. Merci. Hein. Seigneur. Benani encore, ok. Ok. Hey Merci beaucoup. Merci beaucoup. maa ngi xam ne yaa ngi tëb kon yëpp nañ xam ne yaa ngi tëb nit ñi dañoo war dëbbal naa faal ma ay ñaawal faal faal dëbbal naa kaay kaay kaay kaay toogal Baye Ndiaga teranga bu ne sekk nañ ko man ak parce que démb Ndiaye fii laa nag soxna jox ma teranga bu rëy kon Fall xamal lu la wax dégg nga ma ba ci bëggolo mii xaw ma ay parce que démb ak xaalisu location bi tamit nga ne yaa koy gérer Baye Fall kañ nga ñëw bay gérer xaalisu kër gi yow. ah mais wuyu ma ah wuyu grand frère man maa rus naa la quoi te yow sax affaire kër googu sax. dama ko daal li Eh, eh, eh, ma ma man du ma sa maanaam jugee fi. non waroo ko dàq mais wax nga ko ma man affaire kër gi sax laa bëggoon ñu wax si. saa man nekk fële li ma nekk ci gàll i di gérer gàll bi est-ce que yaa ngi dégg. waaw wax ni man maa ne ko man maa koy gérer. mais léegi man am sa ci kër wala wala man Baye Fall laa rek wala ma am wàllu ci kër gi. waaye yow Fall Fall daal yow yaa neex Fall dama ne la kër gi bu doon jigéen ñuy sëy nga yow fay nga bu yàgg. ah léegi kër dañuy fay. waaw loolu la yow foo nekkoon yow nga ñëw kër gi xanaa boo ñëwee fekk kër ñu koy doxal mais nga topp ci ordre yi mais yow nga nekkoon fële ñëw fii ay kër. yow da ngaa neex dëgg ma expliquer loolu je le tiens loolu je le ngi dégg man bàyyi ma ak Pocus Ba man maa ko seere Fall fii amoo loo fiy gérer te lu ëpp tuuru amoo loo fiy gérer kër gi da nga fekk ma gérer ko en main di nga topp sama ginnaaw bàyyi ma kër gi fooy lekkee fooy naane fa la ñuy fayee courant fa ndox boobu foo nekkoon. xamal luñ la waxoon loo ëpp nag tuur. waaw ma affaire maa fi dul nekk di kii sa waay xamal la la ñuy def ah nañ nañ kër gi si digg bi ñu xool ku nekk jël sa kër gi kenn du ko xaaj. non foofu laa jëm a yow kenn du ko xaaj. foofu laa jëm ak yow kenn du ko xaaj. fal nag loo bax tey dinaa ko ngeer. dafa dama ne la loo bax dinaa ko ngeer. dama lay wax loo bax tey dinaa ko ngeer. booy jaay maa la gën a sakk fukk maa la gën a doon waga maa la gën doon wëyu doon bandi. Ah, waaw nga la waaw faa kii bu loo lópp tuut ah kii bu yégee nag dina wàcceel di xam man dama yëg ordination laa yëg. Ah, ah, moom la. moom bu boo moytu di nga delluwaat 200 mètres. a dellu sax. di nga delluwaat 200 mètres yow ci man yow. Fall waay yow te nga waay rajo bi wéet ah? ah? Ah, ji waay ngay am tuub rek dóor rek génn